li may faral di wax de Ousmane Sonko yàlla dafa doon koo xam ne maanaam tabiyaam ni ko suñu borom bindee moo yéemee te daa doon nit koo xam ne maanaam fexeel ko jàpp ko yomb la loolu yombul wala moom képp ko xam la sax xam na ko kon li may faral di wax foofu rek ñu def attention te woote jàmm woote dal te loolu moo gën. jërë mbokk yi ñuy sibur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloowaat ak yéen di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla fi sunu borom dolli jàmm di ñaanal ñi nga xamante ne caabi dal a fete ginnaaw yàlla na leen sunu borom may liberté ba ñu delluwaat seen njaboot waaye nag di ñaanal it ñi nga xamante ne yàlla sunu borom da a jël ci coobareem yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen te xaare àjjana tey nag ñu fas yéene waxtaan ay ponk yoo xamante ne soxal na euh, nit ñi parce que ku ne gis na tolluwaay jamono fan yi caravane liberté bi nga xamante ni Ousmane Sonko mu koy def ñu gis yi nga xamante ni moo ci jot am ba fii ñuy wax ak yéen sànq ñu ngi jot benn message que ni Ousmane Sonko dañ ko arrêté mais amaguñ ci lu ñu leer ci noonu nag la ñu dalalee ki nga xamante ni kenn daru ko présenté mu di Serigne Jamil damay wax ni réew mi heure bu jaxasoowee ba ndaw ñi xamatuñ fi ñu jëm people 221 day déplacé wu xool ñi nga xamante ni méngoo nañu ak jamono te it yàlla may na leen ba bu ñu waxtaaneek ndaw ñi ndaw ñi déglu leen Serigne bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min saan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alxaili fi maxkimihi tansili wa nasli min alqurani maahu wa shifaun wa rahmatu lil muminin wala yashidi salimin ila xasaara ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa réew di suñu borom subhanahu wa taala def ci réew mi jàmm di tuub di jégg lu baax di am mbégte tamit bu baax a baax di ànd ak yéen waxtu ne saa ne waaw kay jërë ngeen jëf. Mhm. am na solo sëñ bi fi may njëkkee Ousmane Sonko. ak Adji Sarr mu nekk procès boo xamante ni. tee naa nelaw ñu bari. presque ay at a ngi nii ay bakkan di ci rot. Mhm. Euh, ñu war leen a jox verdict le première mhm. ñu bari jaaxle. naka nga jàngatee procès boobu. Oh, yaaram loolu moom la ma ci waxoon rek yaakaar naa dama cee wax waxati ji te yaakaar naa li ma ci wax daa bëri te dama waxoon naa dootuma ci waxati waaye nag li ma li wëttuwoo li nga xam ne moom laa leen leeral mooy yëf moom fu mu fu lu yëngu-yëngu du rëy rek jàmm rek mën mm-hmm. waaw loolu moom fu leer laa ko teg waaye nag bu ma soñoon maanaam ñun ñëpp ñu ànd ak dal maanaam wattaniku coow wattaniku tamit aw ay ndax ay leen olof Njaay di wax ay yëmu ci bopp borom uh, te suñ boom day yee ku yee fitna alxam ko kon dafa am loo xam ne bu amee rek maanaam maanaam maanaam bu ko kenn bu ko kenn bu kenn jógee ngir loolu am rek. mën naa dem mbalaw law te ñoo xam ne seen yoon nekkuñu sax day dem ba loolu am ca kon nag la may li may faral di wax mooy mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom ma sañoon dootu dootuma ci laaj ndax dama cee wax a wax wax joo xam ne yaakaar naa waxoon na dootuma ci waxati waaye lu mu mën a doon rek jàmm rek ci am ndax jël naa ci engagement sama waxtaan wi jàng daan ne feeg ma ngi dund jàmm am ndax dinaa ci ñaan te jàmm incha allah rabbi Euh, euh, euh, xam naa du ñu mën a sori foofu parce que mm. xam ñu ban verdict mooy génn mm. waaye ñu bari jàpp ni foofu noonu bu ñu fa daanee Ousmane Sonko nga mm. xamante ni dinañ ko gàllankoor pour mu bokk ci élection loolu nga yaakaar mënta indi tension ci dëkk bi waaw loolu moom yaakaar naa buñ ko defee tamit dana indi dana indi ay leneen ndax am na ndaw yi ñoo xam ne dañoo tax ngir jëflanteeg lu bari te loolu tamit oti yàlla bu ma man ñi nga xam ñoo seq yëfi ñu ñu teg lépp ci suuf rek maanaam loolu bu ma ko waxee mooy maanaam nit dana jéem a yëkkati dara far moom ma koy moom ma koy def rek moom du ci génn te loolu man na ko indi jafe-jafe foofu la waxee. Mhm. moo tax man nañ nañu wattandiku jël lépp teg ko suuf taana ko dal te damay farlu ba moom àdduna dara jotu xëccoo maanaam lépp lu nit ki bëgg rek yàlla bu ko dogalee ci moom loolu kenn mënu ci dara am. bu ko yàlla dogalee ñëpp amancé woon te bëgg mu dem ko du ko du ko doon. Mhm. waaye nag man man li may faral di wax Ousmane Sonko yàlla dafa doon koo xam ne maanaam tabiyaam ni ko suñu borom bindee moo yéeme te daal doon nit ko xam te maanaam fexeel ko jàpp ko yomb na loolu moom yombul loolu moom képp ko xam la sax xam na ko kon li may faral di wax foofu rek ñu def attention te woote jàmm woote dal te loolu moo gën te bu ñu ko defee tamit solution mën naa am. Mhm. waaye yëf kenn du ko kenn ko defee fitna te fitna maanaam di naan ay yëmu ci bopp borom loolu daal laay digal te di di di lancer di wax benn message am solo mooy képp koo xam yaa ngi may dégg boo ma nee lu saraxel mën na glace wala ndox. nga dee ko def sa saa ko mënee laa loolu nekkul force nga di ko def saa boo ko defee suñu boobu dana dimbali ci xeeti ay xeeti mucc yi incha allah rabbi loolu moom maa ngi koy baaxee ñëpp ak may dégg rek. jërëjëf jërëjëf. Euh, ma ñëw ci wàllu ñaan. Hmm. ñaan nag buñ ko waxee dafa am buntu. Hmm. waaye bunt yi nag mu doon bunt yu xaw a différent. Hmm. ma bëgg nga ma ci ay leeral mu di wàllu seet ak wàllu xaar parce que ñu bari tamit dañ koy jaawale. waaw mbirum seet ak listixaar yàlla mu ci defal tawfiq ndax damay faral di wax ne man du ma jëflante nit te seetuma ko ndax suñ boobu dafa doon ñett dafa daje ci man dafa am ñoo xam ne seen aay ndutu faju ci man am ñoo xam seen aay daan dafa ci man am ñoo xam yàlla dañu boole ngir ñu ñu doon kóllëre maanaam nit dana ma gis nii rek bëgg ma ñaanal ko te yàlla dugg aju dara faj waaye ab kóllëre doon te waaw fu bi nga xam la isaatum loolu ma ko jàpp ngir yàlla li yàlla tudd ci alxuraan ndax kóllëre ëllëg suñu boobu da koy laaj dama koy jàpp ci ñaan am na ñoo xam ne samay xarit lañ ñii rek ñu may jariñ lu ne nag wax di yàlla waaye musuma leen jox dara loolu yàlla dañoo ñëw ci man di ma di ma man leen lii kat mënuma ko da ngeen xool keneen ñu xam ne loolu kat du dëgg la ci man ñu ne ma lekkoon dama bëgg ñu fasate ko lëre loolu day am damay dal ci lii may nekk. beneen bi ci topp tamit léeg-léeg nit day ma seetal ko wax ko loo xam ba mu juddoo la nit mus wax mus wax ndax dafa am loo xam ne mbirum bëgguma da ci jaar mbirum seet ak listixaar baraana sëriñ soo xam ne sax dañ leen koy def loolu man dañ ma koy ma koy santaat ngir xam ne man gi ma ko man loolu du dara ndax nit ki bu fekkee ne daa dàq dara moom am nga sañ sa dem ci moom mu jàngal loolu am nga sañ sa dem ci mu dimbali la ci balaan sëñ soxla loolu maa nañ ci maa nañ ci maa nañ ci demal li tax ma ne man léeg-léeg nit ma jëflante ko ma yàlla dawrul ma ma ma ma ma jëflante ak moom te baari bu ma jëflante ak moom tamit bëgguma tamit di ci am lu neen am lu ma bëgguma ci am lu ma laa ci bëgg mm-hmm. waaye képp ku may dégg a ku mën a doon maanaam boo bëggee ñëw bëgg dara na ma bëgg nga def du ma ko du ma ko nangu faaw ma seetal la ba pare faaw ma di saxaar la pare wax lu leer nañ loo xam ne ma judd ba leen nit mus la ko wax jërëjëf. am na solo ma ñëw ci wàllu papier. Hmm. wàllu papier nag nga ci liggéey anam woo xamante ni. Hmm. bariwul lu ko nit di liggéey. Hmm. parce que papiye bi ñu ko waxee ñu bari jàpp nañ ni. ki tukki taw a ñëw donte ci la bokk. waaye ki nga xamante ne tamit day xëccoo. ki nga xamante ne tamit day déposer liggéey. ci réew mi ci bitim réew. Ah, yàlla sunu borom dénk la jaay ay secret mu di wàllu papier. waaw mbirum kayit moom loolu moom damay fàttali ba may nekk ci daara ja daan jàng. dama suñu borom dafa doon tawféex ndax loolu loolu sama deret la maanaam lu ceegin lu ma xam-xam bu ma jàng la wala luñ ma luñ ma luñ ma solle déet loolu sama deret dama ko judduwaale loolu sax la ma cay def bu ma ko defee pare bu ma ko joxee maanaam liggéey naa ay ñett fan ak ñeent fan sama na fa ba ñàgg loolu xay na bu ma ko waxee ci nit ñi danañ def ay ree ndax sëriñ si leen di wax yu mel noonu dafa bari waaye man man mi xam sama bopp di ko defal ay doomu aadama am na ñoo ñu ngi may te ñu ngi dema ko ñëw defa ko nii te gannaaw yàlla man la loolu moom yàlla ndax suñu ko dogal ci man waaye maanaam nga nekk bitim réew nga nekk Sénégal bëgg ay kayit ak fa ma dem ci àdduna mu ci mu ci déggante ma dimbali la ci la ma koy defee du ma ko wax loolu lu may jëf la noonu ndax man waxee dama ko mënul wax ju bëri mënu ma ko jëf laa man waaye nag ku yàlla ku yàlla defal tawfeex nga dégg ma boo ñëwee ci moom ma dimbali la la ma la ma ne dimbali nag loolu nag ci alxuraan la wax suñu boobu ne maa faral naa fi kitaabin seen alxuraan bawul dara lépp ngi ci biir man ci alxuraan laay ñaane ci laay defee ci laay dindee leneen lu alxuraan nag loolu soxlu naa ko képp ku may dégg nag bëgg ma ma ñaan la ci leneen lu alxuraan bul ma woo ndax man yu mel noonu nekkuma ci ndax sama waajur maa yar ci alxuraan ñu ngi demee ci alxuraan may doomi alxuraan kon nag ku ñëw ci man ci alxuraan laa ñaanalee jërëjëf. am na solo mm-hmm. sëñ bi li waral coow li mm-hmm. nga xamante ni daanaka sëy yu bari tasoon na mm-hmm. sëy yu bari defar nga leen sëy yu bari demoon na ba ñëpp yaakaar ne sax dootuñ amati doom mu di wàllu kattan gi biteel bii. waaw biteel bii dama ci faral wax lu am solo dama naan biteel bi dama cee naagu loolu tout le temps leeral ko biteel bi daanaka biteel ku yàlla ku yàlla ku yàlla bind nga doon nit di noyyi yàlla nattu la sa kàttan néew wala sa awra dellu wala nga seeti gaaw daan lii bu ma ko joxee fi nga ko naanee fi nga résultat loolu amuma dem te ñëw biteel bii dañ kaa liggéey ci aaya bi na way sidukum xuwatan ilaa xuwatikum ay aayat alxuraan yu am solo la am na yeneen ñu ko boole nag yaa ne loolu nag du ma ko wax mm-hmm. waaye nag képp ko xam ne yaa ngi sëy di gaaw a daanu wala ngay wala wala wala tamit sa awra dellu ndax awra may faral di wax garab maanaam sidit la rek maanaam sidit maanaam bu ma ko waxee mooy comme garab goo xam ne day day taw a màgg nga di ko mi màgg siit tam noonu la mel am na siit yoom dañuy fasu maanaam boo ko naan day fecc sa sidis ba sa awra day day tàlleeku moo tax nga dégg nit ñi naan yokk awra loolu nit ñi wax yokk awra rek waaye yo loolu dong loolu dong tax ñu naan yokk waaye yokk awra nekku ci leneen beneen bi topp tamit képp koo xam yaa ngi may dégg lu mel ne Amérique Espagne Italie Allemagne euh, Angleterre juróom yi am na ñoo xam dañu ma faa nekkal ngir ngir lii am na ñoo xam te ay machine dama leen ko jox ñu ñu koy joxawaat am na sëriñ soo xam dama leen ko jox ñu koy joxawaat ñooñu di leen tàgg te gannaaw yàlla man la amul effet secondaire. déedéet lii te dama la ci leer leen boo ko naanee ba at nit bu ne ba nga jël ba nga jëlaat bi am na ñoo xam naan garab jëfandikoo ko ba garab ba jeex ñu ñu koy laajaat loolu loolu loolu du garab loolu loolu mooy tane xam nga tane ak wér daa bokkul lii nag day day doon loo xam ne da nga naan léegi léegi gis njëriñ léegi bu la neexee boo jëlee butéel bi mën nga ma woo téléphone jël te di ko naan gis njëriñ li avant may coupé nga ma wax gis naa ko te lii day ndoxam si teg jàngoro kuréel ba yu mel nii yëpp da koy dindi waaw mhm. ah, moom yi nekk ci biir mu bëri te lekk looy lekk te mu mu tëres yi da koy dindi wala ñi nga xam ne seen biir day rëy yëpp da koy da koy dindi maanaam dalay dalay dalay dalay day toj li nekk ci biir lépp mhm. leen dafa am loo xam ne euh, lii daa doon loo xam ne wallahi naa si daanaka baraan ñu bari ñoo xam ne gannaaw yàlla fu ne yàq nañ ci xaalis di si ñaan te gannaaw yàlla ba ñëw ci man suñ boobu dimbali leen seen aaju faju ci lii lii nag du ma ci sori wax ji du ci du ciy gudd maanaam nag du caagéen nag nit day yor xaalis bëgg ko wala tamit mu bëgg jëfandikoo tamit bëgg ko déedéet leen lii ndimbal yàlla ngi am ngeen am ko ndax man dara damaa góndi wut loo mën a bëgg ci man rek bu yàlla dogalee nga am ko ci man nga am waaw loolu moom kon moom yemul ci faj kattan dong day faj waaw xam nga kattan kattan lépp lay faj waaye nag jëmmi kattan ci boppam moo ko tax a jóg ndax yiñ ko booleel mooy mooy yéeme ndax bu ma taxoon naa ne lii ak lii lañ ko liggéey lii ak lii lañ ko fee fanaan waaye daan loo xam ne ba xasee ba jabala amaat day xaw a yàgg léeg-léeg dama ci am sonn ci ñeen fukki bi ne yónnee ko Amérique wala yónnee Italie diggante bu gàtt ñoom na jeex na wallahi nasim ah. ngir lan ngir am na ñoo xam ne ko jox ñu koy jaayaat di ci dàq seen wërsëg loolu nag tiyaaba la mm-hmm. te noonu laa ko bëggee ba ci médecin sax dama leen koy jox ba ci même tubaab yi sax dama leen koy jox mm-hmm. mm. ma ñëw ci wàllu nopp wàllu nopp nag mm. nga yor ci ñaari façon yu wute mm. wàllu nopp laa bëgg nga nit ma ci ay leeral waa mbirum nopp yor naa ci ñaari façon dama ci yor fas yor ci kànnaar xam nga ku ne ku ngi naan fas waaye nag sama fas eh, daa ma benn mag bu ko mag ma ko joxoon bu yéeme nga xam dama ko am lu ma ko liggéeyaloon xolam sedd te amul lu ma joxe moom dinaa la jox loo xam ne dem dem nga dem jamono da ko soxla te loolu tey ñëw na tey kër yi bëri tasoon gannaaw yàlla lijjanti naa ko. dëgg la xam naa ci dara. ñoo xam ñu ngi États-Unis wala nekk ah, Angleterre wala ñu nekk Allemagne wala ñu nekk Italie wala ñu nekk tamit ba ci Suède ñoo xam ne seen diggante ak seen jabar yi dañ am jafe-jafe te gannaaw lijjanti naa ko képp koo xam la të wala sa ko la ma cay def amul suba ko léegi képp koo xam ne wedd nga ni mu wax nag ñoo jëflante ak man baraan na ñoo xam ne kat ay millions laa yàq nañ ci àll ba ñëw man dimbali naa la ma koy defee la ma koy defee ne du ma ko wax te jot goo ëwma ko waaye nag ku yàlla dimbali nga sa soxna tëla ñëwal ci moom ma dimbali la ci man nag dama jóg ngir doon solution beneen bi ci nag fas gi daa doon loo xam ne du ma ko defal ñaar ñoo xam tëkkantiwul mhm. bu ma ko defee ñaar a am rek ga man man maa ngi koy lekk sama borom. Mhm. te dara yi àdduna na ma koy defar la mu doon lu leer nañ ma soo leen kaa defal. Mhm. te damay faral di wax jëmi Modou Modou nekk Italie wala ñi tukki rek fu mu mën a nekk nga xam dañoo bàyyi seen soxna fii ci ci réew ci Sénégal gii ndax baraana ko mi ngi tukki di dem ñu naan ko soxna si am na doom mu ngi ko te la waral loolu mooy daka daka daka daka daa da nga a ba képp kenn ne la da ngi tukki ñëw ci àll bi ñu ne ko soxna di ngént te doom ju juru ko laa wax te soxna am la de kon na ko te li may wax nag loolu am solo la bàyyi ngeen a baax ndax dafa am fu wér mhm. da nga mhm. sa soxna dana baax a mel waaye ñoom ñoo dul la mhm. ba àddina tukki yow day njaaw rek. te dara dara àddina jotlu ko. te lépp suñu boom indi na na ci loo lu ma ci def suñ boom dana ko nangu. la tax ma wax ko nag fu leer laa ko teg ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jërëjëf. jëmee ah. nag ci wàllu nopp boobu des na bi nga xamante ne nag man. waaw euh, daanaka c'est la première fois ma gis ko jàpp tubaab. waa loolu nag ci laay ñëw gis nga tubaab ñu bëri mënuñu ko. Hmm. bon borom kawal ko xonk sax la ñuy wax. mooy hmm. tubaab ak naar yëpp nit jàpp ko lu jafe la. xam naa ci dara même nopp sax nit ku ñu sa jàpp ko jafe gis nga nopp dafa am nit ñoo xam dafa am heure bu jàpp. nopp lu gën a jafe ci ñaan nopp ci la bokk te ñu bëri xamuñu ñu bëri dañ ko waaye nekkul lu même même man man damay faral maam képp ku nekk bitim réew koo xam yaa ngi may dégg di jëflante ak tubaab wala ngay bëggante tubaab mu maanaam mu lay mel mel maltraité lay def loo xam ne da la buntu xatal ñëwal man la may def bu ma ko def ba at niy tukki maanaam loolu bu bëggee mu dañ xanaa ta faatu ma leen tàqale waaye nekkul jëmmam gannaaw yàlla te lii bu ma ko ñaari xaj sax ñu toppante waxuma laa nit ak nit day góor ñaari bàyyi ma mu neen nooba ñu ànd laa wax waxuma laa nit ak nit loolu dama ci am defuma ko benn du ñaar du ñett du dama kaa defati defati ko Hmm. ndax loo doon daa doon loo xam lu wér la waaye nag li may wax nag bu gaa yi jàppee dafa doon loo xam ne xam-xam xam xam xam la bu leer nañ lu yàlla gërëm mu doon alxuraan hmm. waaye nag képp koo xam ne yaa ngi muy dégg nga bëgg ku la noobal te noob gi noob doon noob ku noob gu wér ñëw ci man ñi tax ñu dem la hmm. loolu nag fu wér laa ko teg baraan na ñu bëri ñoo xam ne lañ yor di ko joxe gannaaw yàlla man loolu dama koy wax ndax li tax ma di ko wax dama kaa teg fu leer xam-xam euh, suñ boo dama dama dama ca dimbali ma ko waaye nag ku yàlla maanaam ku ku ku ku yàlla dimbali rek maanaam nga nga nga nga ñëw ci man nag suñu boobu daanaka ma sa aajo dana faju mhm. ndax damay fàttali ma ku aajum tur faju du ma woo. Mhm. ku ma woo ma xam ne la mu bëgg maa ko man yàlla moo doon ko kii kat boo jëfante moom du faj sa aajo moo tax du woo képp ku ma jékki-jékki woo ma sax sa aajo dana faju loolu tawféex la. Mhm. waaw kon fi may wax nag ku am dimbali rek moo woo ku am na solo ma ñëw ci li nga xamante ne tamit ndaw ñi daanaka jamono ji ñëpp a ko soxla. Hmm. mu di wàllu kaaraange. Hmm. ndaw ñi dañuy dox te amatuñ sécurité. waaw jëmmi kaaraange suñu borom dafa dogal ne la cee def bu ma ko defee maanaam ku mënut a jël gileem def ko ci benn benn pousse kooku mënul ci yow dara. Hmm. jamono daa neexul ndax ñi lay fexal day bëri ñi lay gàllankoor day bëri moo xam nga xam ko moo xam nga xamu kon nit ki jugal sa bopp ndax yàlla dafa dafa digg ne adduhoo ni astajib lakum ñaan leen may leen. daan na saar isa saari xibaari an nii fa inni xaribun ujibu daxwa daa isa daaxaani loolu alxuraan ko tudd mhm. te alxuraan tudd rek la te lu gën a wér lu alxuraan man gisuma ko kon nag li may digal doomu aadama yi ak ku may dégg foo mën a nekk ak donte yaa ngi may gis donte donte yaa may dégg demal nga ñaan lu ji seet yàlla li tax ma demal nga ñaan lu ji mooy ñaan daa mënut a ñàkk ci doomu aadama te suñu yontu neen adduxaan yi ma yontu si ñaan mooy nga nay julit kon dafa doon loo xam ne la may def ci kaaraange di ko jox doomu aadama bu ma ko joxee ku mënta jël gileem mun mun def ko ci bën pusu bën bën dara ndax nit danga gis nit de mu jékki jeere bañ la te yàlla tax dem rek àllam di financé ngir bëgg laa toroxal waaye am na ñoo xam ne kenn du leen toroxal ndax suñu borom dafa am na lu def ci ñoom ñoo xam ne boo leen bëgg a torox sa yaay torox mm-hmm. kon nañ nit ñi tee nit ndax bu leen gis nit rek nga gis nii nii rek nga jàpp ne moom nit la nii rek te am na du nit du nit kese kese am na lu lu doxin seen biir bis bu ne attaqué rek ci nga xam nit ñoo ñooy kan ñu bëri yàqul lañ te la lañ tax ñu yàqule maanaam danoo jënd am kun attaqué rek wala dafa am kun tooñ te daa am ñoo xam du kenn du leen tooñ maa ngi giñ ci yàlla ne képp koo xam teg naa loxo suñu boobu daan la teg loxo ndax damaa yor lu wér loolu nag sikki ko ndax alxuraan la képp koo xam ne yaa ngi dégg sa aaji bëgg a faju ma wooy ma dimbali la dëgg la nag sëriñ ci yàq na lool waaye nag dama bokk ci ñi defar ndax suñu boobu dafa da wax ci mooy boo gisee dara nit nit di yàq yow nga war a defar te defaroo am nga bàkkaar kon nag loolu du ma ko seetaan du ma gisee ku yàq damay jug ngir defar du nekk si naan diw bàyyi nga def léet goo awma ko damay jug ngir defar jëmmi kaaraange googu nag nit ki nag bu ma ko defalee pare dinaa la jox sangatu ubbeeg goo xam ne boo ko sang parce que bari na ñoo xam ne ñu woon ci naar bi man gis naa ci ñu tay la seen i kër dem ci naar bi code bu nañu gée ko mhm. yàlla sunu borom jaarale leen ci yow ba tax tey ñu sampay entreprise li ma a xamal daal mooy jëmmi sangatu ubbeeku képp koo xam jox naa la ko ba nga jëfandikoo nga sango ci kawe lu kawe am na yu ma àndal ndax sóotu bàqar laa ko liggéeyee yaakaar na sóot baaxal ma jumut aay ñaar téeméer aay la ak juróom-ñaar fukk juróom-ñaar ma jumut am na euh, aaya bu nekk sóotu Mudassir ñu naan ko jaxantuloo maanaam moom dund aaya boobu nga koy rabbale am na loo koy booleel loo loo koy booleel nag du ma ko tudd waaye nag ku ma ko jox nga jëfandikoo ko ba adduna tukk dootoo tëju xam nga wax dara ñu naan moom mi ko wax loo su jëfandikoo ko est-ce que ku nga ko xam nga li mu yor gis nga dafa am loo xam ne maanaam maanaam dafa am ñu ko war am ñu ko war am am ñu ko war am man léegi nit day ñëw ci man bëgg sa nga ubbi ma ko lii mënoo ko am xool yi leneen mu bàyyi ko fa dem ci dem ci bu demee ci keneen nag keneen di ko nax naa ko defal lii ma koy def trop du gis li mu bëgg mhm. man boo ñëwee ci man man leen war nga xam mën am billaahi wallaahi si ma ko def sa aajo faju sa nga ubbi ku ma ko def ba adduna di ko dootoo tëju laal mhm. ak képp koo xam dafa nekk ci place di fa liggéey maanaam mu yaakaar ne kii dañ ko fi maanaam mu njort ne dañ ko fi bëgg a xeex bu ñëwee ma ma samp ko dafa ko loo xam ba adduna tukki bu fa bëgg jóge rek gannaaw yàlla moom la neex waaye du doon nit mhm. léegi da nga gis nekk ci entreprise boobu nekk ci place ñu koy bunt xataal ah di nga xeex ngir ak njàmbaareem lu adduna koo gis nañ kaa samp. Mhm. waaw si ngeen di xaar daan wax naan maanaam maanaam xaw ma ko waxee rek moom. Mhm. loolu dëgg mhm. gis nga Olof Njaay daan naan ku wéeru yomb bu wax nit ñi faaw nga am fooy wéeru gannaaw yàlla ñu la dimbali mënut a ñàkk. in tansurullah yansurkum suñ boobu nee ku di dimbali damaa dimbali la man dimbali yàlla laa waaye sàkku mu dimbalu doomu aadama mhm. taw am maamaa yenn faw naes fm ko si arde képp ku amal nit ñi njëriñ suñu borom bàyyi la ci kaw suuf mhm. maanaam bëgg amal amal nit ñi njëriñ moo tax may sonn nit mhm. waaye du leen ndax suñu borom teral na ma da tax ma jug di defar ni ne gis naa ne nit nit ñaa ngi jug ngir yàq moo mën nag ma jug ngir defar loolu dong la sëñ bi ma ñëw ci secret jaaro bi waaw jaaro bi moom du ma ci sooy ndax wax daa xat euh, du ma ko génn sax bii ma takk nii ndax damay faral di wax lépp lu ma jox doomu aadama sama bopp laa ci jiital jëmmi jaaro mi ku yàlla bind ma jox ba àddina tukki nit mun laa njabar te maa ngi lay wax ñeent yoo xam da nga ci mucc doo dee ci accident doo dee ci lakk nit lu nit di jox lekkal te foo mën a dem ci àddina nga dellusiwaat nit dana tukki te bu ñëw am néew la doon yaa ngi nit dana tukki te bu ñëw am néew la doon ci kees ñu la kon nag nit fépp fu muy na sabablu ndax sabablu daa mënta ñàkk ci doomu aadama wa aataynaa min kulli shay'in sababan ci alxuraan mhm. mhm. bala maa di ñaan man gëwuma ko sëriñ ci danoo sëriñ ci lañ bàyyi yooyu mhm. àddina koo gis loo gis métti métti moo gis am na ay yàqkat métti ñoo gis ne am na ay defarkat hmm. kon nag nañ bàyyi nit defeen dara ñu ñu méngale ko ñëpp ñëpp hmm. bokkuñu yem hmm. loolu yàllaa ko dogal ndax baaraam yi dañoo sutante yëpp tollawun de kon nag nit ñi noonu lañ noonu lañ noonu lañ noonu lañ suñu xel nag ci lépp waaye nag jaaroo ku ma ko jox ba àddina tukki fekk mi ngi sa loxo doo ñàkk te doo dee ci accident lakk foo nga delsi te maa ngi lay ci yàlla li am ci njariñ ëpp ma ko wax ne daan daan la jaaxal mm-hmm. te waxtu doo xadaay kon ma leer lan mooy jaar ci yonte yàlla Souleymane ba jamono ji mm-hmm. ndax it naaj émission ma spécial jaarooy doon d'accord waaye jaar moom képp kuy dund war ngaa takk ndax takk ko nii rek te defuñu das dafa baax ko waxtu ma tamit nga nga nga nga def ci dara mm-hmm. jërëjëf mu ngi noonu moom laa daraloon mu di Serigne Jamil fi may jeexalee nag Modou Modou yi ñoomee message dañuy encaissé xaalis sëriñ si ba pare di leen bloqué. Moodu Moodu yi di envoyé ci la ñuy gëj a dégg. boo waxee ñu naan dañoo occupé la dugal liste noire di def ne pas déranger sëriñ bi loolu nag nga am ci part de responsabilité aussi. waaw loolu moom dama ci sawar sax ndax li dama ci sawar mooy jamono ji la am na sëriñ soo xam danoo danoo maanaam ay saay-saay lañ ndax ndax li ma la junj léegi rek li tax ñu doon ay saay-saay mooy dañuy gis ci doon sëriñ bu baax def lu baax ñu nduróog moom nduru nduru ko def li muy def nit jàpp na sëriñ la ñu mu dugg arnaqué leen lekk xaalisam te du mujj fenn bu ko defee nag kooku maanaam maanaam maanaam maanaam jàpp ñëpp yemuñu moom lay wax ñëpp ñëpp yemuñu waaye na képp ko xam lekk na sa xaalis ci tey ba kanam maa ngi lay giñal ci yàlla na bis dana ñëw dana ko rëccu ndax yàlla wax na ci alxuraan ne képp ku lekk al nit ci neen dana métti ci yow de hmm. waaw nag jàng naa xam naa loolu kon loolu dama ko wattandiku te day adduna ma kaa jërulut hmm. man ñaar fukki dërëm yi doomu aadama lekk ko ci si neen tëdd di nelaw loolu waaye nag dafa am loo xam ne message bu ma ci bëgg a jàll am na ñi sëriñ yi doon client noonu la am na client yoo xam ay client lay ay client lay doon ba xam nga loolu ko pare li wax dëgg la mu xëy mm-hmm. am baax ci côté bi am nañu bon loo gis ci nit rek ndax léegi na client yoo xam dañ lay wane la waaye dama dama dama suba euh, liggéeykaay bi nangam nangam léegi bàyyi ma yónni la ba nangam nangam noonu ñoom noonu la ko yónni ñoom am baax waaye dafa am ñoo xam noonu noonu noonu noonu tamit léegi am na sëriñ am na am na sëriñ client yoo xam tamit dañ la yónnee xaalis nga ñaanal leen nga jekk jëdem ba ci biir am empêchement maanaam am beneen xat-xat la dal nga toog ñaari yooyu dégg ñu jàpp ne rek leen tiance tiréwu leen bu ko di la woo di la attaqué naan si mi bi waaye nangam nangam waaye yooyu bu jàpp ne sëriñ sëpp am déedéet nit ku lay trian maanaam boo xool jëmb ji war nga xam ne képp trian la nit koo xam day lekk sa lekk sa xaalis ñii boo xool war nga war ngaa xam man ab triankat fu ma gis xamee ko loolu yàlla ma ko nattoo dama naan la même man même nit damay woo doon ab client ma xam ne kii ab triant la waaye dama koy bàyyi ci biir damay wax pare ma maslaa ba génn ci rek ndax maa jëflante moom ndax mun maa jëflante damay sonal rek te sonal damay damay damay xam ne sëriñ si bët la koy def léeg-léeg ngi gis soo lay woo ba daal lay saaga moo tax méccam sëriñ dafa metti li tax ma wax la ko ndax doon xam ne jamono yi ñu toll bëgg ma jël lépp rek gaaj ko sëriñ si ñi mu amee sëriñ si noonu la amee ci client yi wallaahi naa sim te même sëriñ si duñ gën di wax man damay gën di leeral loolu. wallahi naa si te jamono tamit xam tamit dañuy dañuy dañuy dañuy bëgg tamit maanaam yónnee la xaalis bëgg tey tey tey nga jot seen ñaan ñaan yombul. te boo leen jéggi jël ko jox ñu jëf ne gis ñu ñu xëy waar la si na xam ne gisuma ko naan te ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo yàkkamte te ñaan yàkkamte gaa yàqule hmm. loolu nag baaxul hmm. man nag li may leeral na ki naay dal ànd ak dal te xam ne que lu dul yàlla rek neen la hmm. te jamono ji ñu tamit tamit yàlla bu la sa diggante ëllëg mën ngeen jëriñu ci ne di ko woo di ko daggal saaga di ko woo di ko attaqué amul njëriñ ndax mën ngeen dem ba doon ak mbokk te bu da nga koy rëcc rek man loolu ma koy bàyyi moo tax mu nit di jëflante ak man yàlla xam ne ne damay bàyyi xel ci yu bëri ndax mën naa dem ba doon sama mbokk ndax damaa masa daal moo tax mm, damay rafetal sama ndax bis dana ñëw mën nañoo gisee mu doon sama mbokk te fekk dama kaa jëfan jëfan ñaar damay rus rek te bu ma ko jëf jëf ju rafet damay ko damay bëgg kon loolu rek laa bëgg moo tax na nit ñi ànd ak dal te xam ne jamono ji tamit jamono yàlla lu waaye def sa bopp lu mu nit nit maa def bul ko gën a ci xët-xët hmm. fexe ànd ko dal nga bàyyi ko yàlla yàlla ngi yaa ngi gis te nit lépp lu mu yoroon doomu aadama balaa dee dana ko gis hmm. te fay meru maanaam maanaam attab yàlla moo gën atta ñii ma gis hmm. jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon ñun duñu suivre maamoon mbégte lool ci dalal ko xat na torop nag mm. mu di Serigne Jamil numéro téléphone yaa noonu di daw ci service commercial bi soo ko woowee rek incha allahu rabbi di nga jokkoo moom lépp lu sa aaja boo moom mm. euh, sa mot de la mm. <clears throat> di lancer benn message am solo mooy képp koo xam ne sa aaju ndota faju yàlla boo ma woo ndax man bëgg ma jëflante koo xam ne aaju ndota faju képp koo xam ne tamit maanaam boo maanaam boo jëflante bi leneen da ci am yàlla bon woo man ki ma jëflante mooy ku dal ku yiw ku baax comme man ñu ànd ñaand euh, jëflante jëflante bi ndax man mbirum ñaan dama cee yàgg ndax at yi bëri waa yàlla goon am na ci ay turandoo am naa dem ba am nit jëblu ci man dem naa ba nit keneen ma daayira dëkk ba mu nekk ngir sama jëm rek rafetal googu nag damay bëgg nag waxtu nekk muy laaw ba koro sàngoo suuf te damay bàyyi xel sama diggante sama borom ngir ëllëg moo tax yu bare ba dama ko te yu bëree boo nag damay ci damay sama tànk ngir ëllëg ndax bëgg naa sama sama ginnaaw mu doon rafet te bëgg mu doon lu ñaaw loolu rek laa ci jublu mhm. di tuub di jéggul di ànd ak yéen waxtu nekk saa su mhm. salaam wa rahmatullahi taala mhm. barakatu jërë ngeen jëf mbokk nga xam ne yéen ñu doon siiwul di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf